wa in yushabi su niroog al mudaafu bu niroog yafalu feelu mudaari o ci lan ci mën a doon léegi-léegi mbaa ëllëg te mënatul doon démb ndax mudaari o mu ne su ko yóbbu ci démb te kon day mën a dal di jëf-jëfu feel mën a nasab mafool wuteeg su niroowul ak yafalu nga xam ne tànk bi passé la ni ki jaa a daari bu zaydin am si dégg nga kon daari bu ismu faayil jooju sifa la nirootul ak mudaari o ndax tànk bu passé la woon kon laafiyam ban na ko jëriñ taarif moom de du dëgg ndax ndaxte laa yaamal ismu faayil maanaam sifa su yorul al laa yaamalu fil maadi kon du niroog mudaari feeg yorul al nag su yoree al nag ah ibnu malik nan ko bàyyi ba mu ni wa in yakun silati al silata alfa fil mudi wa gayrihi imaaluhu qad irtudi dégg nga su niroog mudaari on fi kaw ni lil xaali wa lil istiqbaal ah wasfan muy sifa kon fa laa yusalu deesu ko berati mukk deesu ko dindeeti an tankirihi walis nakiraam li tawaqulihi fi libham kooku kenn mënatu koo génne ci nakira laafam du ko jëriñ taarif du ko jëriñ taxsiis taxfiif rek lay mën a jëriñ ni ki tey rubbara jiina azimil amali rubbara jiina bare na sunu aji yaakaar ah azimil amali ku di aji màgg mébét mu rawail xalbi ku di ku ñu tiital xolam qalilil xiyadi ku di ku néewi pexe yooyu moom idaafaam jëriñul taarif jëriñul taxsis ndax mudaaf ilayhi mi wasfun aamilun la fi taqdiril infisaali fal idaafatu jëriñul dara lu dul taxfiif ay li la wóoral ni laafe gi jëriñu ko taarif seetal madxoolu ruba lu muy doon du ruba nakira rek lay jar raaji naan laaf gi mu laaf damir bi di di di maarifa lu mu ko jëriñ li annahu fi taqdiri linfisaal dafa mel ni da nga ni ruba raajin lana azimil amali kooko lu ko laaf gi jëriñ taxfiif rek nde amalu faayil la ci maanaa dafa mel da nga ni azimin amaluhu murawwa il qalbi ismu maf'ul la moom murawwa dafa mel ni qalbu naayib faayil la murawwa in qalbuhu kon kon mudaaf yi jóguñu ci nakira seen laafe gi jëriñu leen lu taxfiif xalilil xiyali aji néew ji pexe moo tax fii mu ne mën nañoo doon si fas nakira du dëgg xalilil xiyali maanaam xalilin xiyaluhu aji néew ay pexe pexeem ya dañoo néew yooyu faay lañ ci baana kon sifa bi li mu laaf amal la ci def comme jëfu feel rafaa ko muy faayil wala yooyu wala mu nasab ko muy mafoon wasil idaafatu laa fi bii nga xam ne jëriñul taarif jëriñul taxsiis xanaa taxfiif rek la mën jëriñ ismuha turam ci istilaax lafdiya rek lañ ko wax li anna nafaha raajiun li lafdi faqat wa huwa taxfifuhu aw taxsiinuhu fi misli xasanil waji wa tilka li àlaa fi bële nu jëkkoon nga xam ne day jëriñ taarif wala taxsiis li nakira kooku maxda laafe piir bu sell lañ ko tudde wa maanawiya te tudde ko laafe maanawiya li anna nafaha raajiun ila maana tarki aslu albida almudaafi muctafar in wusilat bithaani kaljacdi shacar aw billadi lahu udifa athaani ka zaydun addaaribu rasi ljaani nee na mudaaf mii nga xam ne mooy li nga xam ne idaafa lafdiya rekk la nga xam ne jëriñu lu dul woyofal kàddu gi léeg-léeg mbaa rafetal ko kooku kon lidaafam bi comme du idaafa maxda du piir xanaa lafdiya rekk la ba nga déggee ñu naan mudaaf fokk ñu la mu am am ane woon baat soo ko naree laafal lu mu takkaayoo woon bu dee alif ak laam al ca njël benn da nga koy dindi bu dee tanwin ci mujj da nga koy dindi ah waaw dëgg la amaa alif ak laam gi ba nga xamee ni mudaaf du taara mukk daal dadul sunu mudaaf mii nu wax ndax moom taaraam taaraam taxfiif rekk lay jegal fi taqdiril infisaal waxoon nañu ko démb wa waslu al ba tax na jokk al bidal mudaafi ci mudaaf mii nga xam ne idaafaam du maxda muxtafarun lu ñu jéggale la mën na nekk al baaisu rusuli ci bopp risaala baat boobu al baaisu rusuli gisoo ko loolu la maanaa rusul mafoon la ci baaisu ci wàllu maanaa rek laaf bi taxfiif la waaye nag sart ba bi ñu koy def ci mudaaf mi na fekk in wusilat suñu jokkee aljabil mudaafi ilayhi bi saani ca ñaareel ba mudaaf ilayhi su fekkee ni mudaaf ilayhi ma ngeeg al kon mudaaf ma mën na yor al niki al baaisu rusuli kal jaadi shaar aji barang aji baramu ji kawar al jaadi shaar da koo laaf ndax shaar maanaa faayil la dafa mel da nga ne al jaadi shaaruhu aw wala sax alja jokku billadi ca baat ba nga xam ne udifa lahu thaani dañ koo laafal mudaaf ilayhi mi nga xam ne day ñaari mudaaf mi dafa yorul al waaye dafa laafoon lu yor al niki ka xawlika zaydun addaaribu rasil jaani seetal al jëkko daganal ma nga ca jaani te rasi mudaaf moomu jaar na fi te rasi amu ko kon bon looloot mën na am addaaribu rasil jaani daari bu laaf na rasi te ma ngi yor al de al rasi maamulam la ci maanaam bi maanaam mafual la aljooju nag wa kawnuha fi lwasfi kaafin in waqa musannan aw jam an sabilahu taba mu ni loolu lu ni fokk mu daafam mën na yor al ndem mu daaf ilayhi may dafa am al mbaa mu laaf lu am al loolu bu fekkee ni bu fekkee ni sifa si nga doon bëgg a laaf mooy mooy sifa amila bii nu wax ni nu yor ndax bii nu wax ab sifa la su fekkee ni moom ci boppam dañu ko tasniya mbaa ñu jamu ko te mu yor al loolu sax doy na léegi mën na laaf lu yorul al laaful lu yor al moom la ni wa kawnuha nekku al ja fil wasfi ca sifa ba kaafin lu doy la walis muy nekk ca ba ca kanamam sax in waxaa su dikkee musannan doon lu ñu tasniya ni ki addaaribaani zaydan bu la neexee ne addaariba jaa addaariba zaydin zaydin yorul al laaful lu yor al aw jaman wala muy jamu joo xam ne ittabaa topp na sabilahu yoonu tasniya fi irabi bil xarfayn jamu tabi jamu jamu ala haddil musanna toujours waxoon nañ mooy jamu muzakkar salim bu dee jamu muzakkar salim ba tey nekkam ca sifa sa rek doy na mën na laaf su yeboo la mu laaf amul al sax laaful lu yor al dégg nga Zuhayr nee na di wasaf ay fas ca xare ba فنهنهها ساعة ثم قال للوازعيهن خلوا السبيل للوازعيهن لل ما نجي أمي ال وازع اسم فاعل ما نجي تارة waaye nag jam gi jaw muzakkar salim tax na mu laaf damir rek faf damir nag amul al laafu lu yor al lil waasiihinna xallu sabila ah dégg nga itam waxu tara antara fa mu naan ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابن- على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي الشاتم الشاتمي عرضي شاتم اسم فاعل دفع أمي الواينك تسنية له تخنا جسنك ملاف عرضي الشاتمي عرضي نيوم ني وريق سمدها wa kawnuha fi lwasfi kaafin in waqa musannan ni ki ashaati may irdi aw jam'an ni ki misaalu lil alwaasiihinna jam'u boo xam ne ittabaa sabila almusanna fi liraabi bilxarfayn wa rubbama aksaba thaanin awala taani sanin kaana li xadfin muhala beneen atte ci atte idaafa bayt bi wa rubbama aksaba bare na bu dee fàgguloo thaanin aji ñaareel mudaaf ilayhi léeg-léeg mu fàggalul awalan bu jëkk ba mudaaf ba léeg-léeg mu ko may taanisan te fekk muzakkar la woon mudaaf danay muzakkar laaf mu annas tax ñu taanisal ko moom mudaaf ma waaye nag in kaana su nekkee dégg nga moom mudaaf bi moo halan di lu ñu yàllalee li xasfin ci xadaf su fekkee soo ko dindi woon bàyyi fa mudaaf ilayhi ma dana doy te maanaama du yàqu soppiku kon mën nga mudaaf ilayhima di muannas faf tax ñu taanisal mudaaf dégg nga awa niki kama shariqat sadrul qanaati min addami baatu sadru muzakkar la taanisal na ko ndax li mu laaf qanaati ji muannas kama shariqat niki di fote sadrul qanaati dëndu guntux bi min addami ci deret ya muy tuur waaye taanisan nga bu la neexee nga ne aw tazkira nit mën na koo yóbbe tazkir maanaa mudaaf mi mën nay mu annas laaf ab muzakkar tax ñu tazkir ko loolu mooy safaan ba ni ki ru'yatul fikri maa ya'uulu lahu l amru mu'inun ala ijtinaabi tawaani ru'yatul fikri gis gu sa xalaat gis maa ya'uulu ilayhi amru la la mbir mi di mujj nga teel koo xam loolu mu'inun luy dimbalee la waxul mu'inatun te mooy xabaru ru'yatu lu ko waral fikru bi mu laaf yóbbee na ko tazkir sédoo muinun sifas ru'yatu la xabaram ru'yatul fikri gis gu sa xalaat gis maa yaulu ilayhi damru fa mbir mi mujj ëllëg loolu teel koo xam muinun luy dimbalee la ala ijtinaabi tawaani ci wattandiku yeexantalu ca dana tax nga di ca farlu soo xamee fi mu jëm ëllëg xikma bu rëy a ngoog naka noonu it mën na koo indil leneen kat mu daa mu daaf mën naa faggu ca mu daaf ilayhima ak jamu te fekk moom sax xëy na kenn la woon wa ma xubbu diyaari chaxaf na qalbi walakin xubbu man sakana diyaara nee na wa ma xubbu diyaari du jegee ni sopp kër ya rek chaxaf na qalbi ñoo fees sama xol dugg ci sama biir xol walakin xubbu man sofeelu ña nga xam ne sakana diyaara ñoo dëkke kër ya ñooña laa sopp dégg nga xubbu damiru chaxaf na fu mu dellu ci xubbu xubbu di mufrat chaxaf na lil jamaati muannasaat diyaar boobu di jamaa muannasa moo ko mooy moo may xubbu muzakkar mi moo ko yóbbe taanis gi tax ñu naan saxaf na te te waxul saxafa rek su ko dawaloon ci lafzu xubbu kay dafa naan wa maa xubbu diyaari saxafa qalbi waaye du ni saxaf na ñoom diyaar yaa tax xubbu mu daal di ko di mufrad ba yeggal mu delloo ko damiru mbooloo de du dëgg looloo tam mu daaf mën na ko kon wa rubbama aksaba saani awalan taanisan aw tadkiran aw jaman loolu lépp mën na ko def loolu lu ko andi mudaaf ak mudaaf ilayhi shay'un wahid loolu lu ñuy wax kon mu des ay beneen at wala yudaafu kenn du laaf ismun lisim lima ñeel lisim ja nga xam ni ittahada bihi bennoona ak moom maanan ci maana lisim lañu koy laafal xam nga laafe li mu daan jëriñ mooy taarif wala taxsiis du dëgg lisim nag du mënula taarifal boppam mënu koo taxsis ñaari lisim yu bokk maanaa kon kenn du ko ko laafal wa awil na nga taawil moohiman lu la defe woo defe loo ni loolu mën na dagan soo déggee ci arab loo xam ne moohim dafa nekk lu lay defe loo ni loolu mën na nekk isa war a da ndéem néew na ci waxu arab kon na nga ko taawil dana la wax taawil bi na muy demee ka qawlihim jaa saidu kursin arab yu jëkk daanañu ko wax nax yoon yi di ko misaale kurs laqabu said la ibnu malik nee na wa in yakuna mufradayni fa adif xatman wa illa atbi illadi radif mu dégg nga lisim ak laqab bu laqab dee mufrad lisim di mufrad nee na nañ ko koy laafal nga ni jaa saidu kursin kurs kon lu muy doon comme mooy said nañu ko ko laafale ñu ni kon ala awil hu taawil ko mooy ala tawilil awali bil musamma wa thani bil ismi dafa mel nga da nga ne jaa a musamma hadha al ismi ka ñu tudde kursi ñëw na jaa a musamma saidu kursin ay jaa a musamma kursin kon said ji dañ koo jàmtal comme ku noonu ka ñu tudde tur sàngam ñëw na loolu mooy tawil ba ba tey wa baadu l asmaai yudaafu abada wa baadu za qad yaati lafzan mufrada wa baadu ma yudaafu xatman imtana إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقعك وحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء اليدي للبي نانا وبعض الأسماء ينك لسمي يضاف دنك إلافة أبدا فو دون تاغوك إضافة مك أمنا لسم لسم يونيو إلافة لسم تيوالو إضافة نينت خاجلة دينغا آه ما أمنا يو خمني déedéet ci wàllu naat laay bëgg a wax maa ngi bëgg a boole wàllu naat laa ne lisim ñeenti xaaj la kooku nan bàyyi ba dem buntu naat waaye lisim am na yoo xam ni dana laaf dégg nga am des na ko laaf waaye du laaf ni ki ay alam manees na ko laaf nga ne ko laamu saydin waaye kenn mënu la jël saydi di ko laafal leneen alam am na yoo xam ni ba tey wala dégg nga wala damirit damir it mënees na ko laaf nga naan xulaa mukka waaye de mënees na ko laaf jëmi mën a nekk mu daaf lay waaye mën a nekk mu daaf wala yudaafu kenn du laaf isma wa baadu lasma yudaafu abadan yenn yi li mu ci bëgg a wax du tàqali koo laaf lu doon cosaan lisim nga mën koo laaf taaratan mën koo bañ a laaf xulaamu léeg-léeg nga ne xulaamu saydin léeg-léeg nga ne jaa a xulaamun waaye am na ci lisaf yoo xam ne dañuy laaf abadan li mel ni kulloo kullu nag baadu nag ay lisim yu bare wa baadu ma wa ba wa baadu zaay lenn ci yii ñuy laaf abadan léeg-léeg xad yaati mën na dikk mufradan di lu ñu ber anil idaafati lafzan ci lafz bi te fekk nag ñu di ko fa nattale ni ki kullun kullun fi falakin yasbaxuun kullun jaa jaa kullun ñëpp maanaam kulluhum mbaa kullu naasi nga ni kullun dégg nga kullu bari na ci loolu wa in kullan lama li foo fekki kulloog tanwiin a moog baad wa baadun yaqulu nangam ay wa baaduhum wa baadu naasi kulloog baado yu mel noonu léeg-léeg mu dikk di mufradan an il idaafati lafzan walakinahu fi xukmi lmudaafi ndax mu- fal mudaaf ilayhi muqaddar la xat wa baadu daa yii ñu yenn ci yii ñuy laaf abadan xad yaati mën na dikk mufradan di lu ñu bañ a laafal ah, lafzan ci lafz bi rek waaye du tee ñu di ko nattali wa baadu maa yudaafu xatman yenn ci yii ñuy laaf faw faw fawit lu war imtana aday terewu ilaahu méngale ko isman zahiran mu nekk mu- mudaaf ilayhim mudaaf ilayhim du mën a nekk mukk lisim zahir damir rek lay doon xaytu waqaa fu mu mën a dikk yooyu nu mu mele ni ki baatu waxda ak baatu labbay ak saaday ak dawaalay damir rek la ñuy wax waxdaka rek la ñuy wax ak labbayka wala dawaalayka maanaam tadaawulan baada tadaawul wala saadayka isaadan baada isaadin soo dee terali nit wala nga ni ko labbayka wa saadayka maanaam labbayka maa ngi la dëkkee wuyu faw loolu mooy maanaa labbayka looloo tax wu- wu- wuyug teraanga la soo ne nit woo nga ne ko labbayka da nga mel ni ko da nga ne ko maa ngi la dëkkee wuyu faw faw faw ndaxte tasniya la goo xam ne almuraadu bihi takraar laa mujarradu shay'ayni faqat maanaa baat bi nag cosaanam masdaru alabba ilbaaban ida aqaama yuqaalu alabba fi lmakaani ida aqaama masdaru afala ifaalan ilbaaban ilbaab moom la ñu tasxiir moom la ñu euh, euh, kile tasniya tasniya ak tarxiim ni ñuy defee tasxiiru tarxiim noonu lañ maanaam xadaf sawaid ya yëpp mu des ñetti xarafi cosaan ya fiil bi mutaaddi la woon labba sax na nga ni a labba fil makaani ilbaaban léegi ilbaaban nga def ko tasxiiru euh, tasniya ak tarxiim dindi sawaid ya mu des labb rek nga ni labbay labbayka mu doon tasniya boo xam ne almuraadu bihi takraar de niki farji'il basara karratayni tasniya boobu nee ñu takraar rek la tekki wa illaa xool ñaari yoon asamaan du tax sa bët sonn ba dootoo mën a gis nga nekk ah, ah, xaasi an wa huwa xasir kooku karraat ay nazaraat moo koy def ba bët bi sonn ah, kon nag farji'il basara alquran bind nañu ko amul benn futuur farji'il basara dellul sa xool dellool xool ah, hal tara min futuur ثم ارجع البصر كرتين كرتين رك ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لن ينقلب البصر خاسئا وهو حسير بالنظر مرتين فقط بل بمرات متعددة كوحدة لبي ودوالي دين دواليك أي تداولا بعد تداول دواليك حتى كلنا غير لابس إذا شق برد شق بالبرد مثله dawaalayka xatta kulluna gayra gayru laabisi kii nag andiwul ba bayt moom am andi nga ko dawaalayka baatu dawaalay loolu mën nga ko def shahid ida andiw ko ida shuqa burdun shuqa bil burdi mithluhu dawaalayka xatta kulluna gayru laabisi naka noonu saadayka isaadan laka baada isaad wa shadda kon génn na xiyaas ndax danu ni woon labbaday damir rek lay sax moog waxda lay laaf moog waxdak chad génn na qiyaas ilaa u yaday méngale yaday def li labbay yaday lismu zaahir la néew na lu ñu ko tofal ci labbay mu laaf ko de dégg nañ ko nag ci bay daawtu limaana bani miswara fa labba fa labbay yaday miswari labbay yaday miswar labbay ma ngi laaf yaday dafa jublu ni ba ko jamono jotee miswar la woo mu dal di ko wuyu ba mu ko wuyoo alal la tibbëg loxoom jox ko moo tax mu ni fala baa mu wuyu mu daal di ni fala bay ya day miswar may itam bu ma miswar wu jàmm tàng bu mu ma woo pour may lu ma ko defal na daal di xam ni danaa wuyu ñaari loxoom yi ay junj la ni dafa maa jox ci ñaari loxo dafa maa dimbaleeg ñaari loxoom yi moo tax mu ni fala bay ya day miswar manit ida daani fala bay ya day miswar kooku nee na chaz la boo xam ne la bay kenn daawu ko méngale lu dul damir wa shadda ilaau yaday li labbay fi hada bayt wa alzamu idafatan ila jumal ila aljumal xaythu wa id wa in yunawan yuxtamal ifraadu id wa maaka id maanan ka id adif jawaasan naxwu xiina jaanubid wa alzamu taqale nañu xaythu ak id ñooy ñaari lisim taqale na ñoon idaafatan ak laafe yi taqoo laafe faw lañu waaye ñoom lu ñuy laaf ilal jumal ci ay jumal su dee jumlay feel baax na su dee jumlay lisim baax na jalastu xaytu jalasa saydun mbaa jalastu xaytu saydun jaalisun wala jalastu id jalasa saydun wala jalastu id zaydun jaalisun xaytu ak id kii zarfu makaan la moom xaytu kii zarfu zaman la id waaye ku ci ne day taqoolaafe jumla la ñuy laaf wa id yu nawon wa in yu nawon suñu tanwiine id nag yuxtamal ñu daal di toxal dégg nga wala nga ni ñu mën a jamtal ifraadu is ber is is daal soo ko tanwiine tanwin nga mën a nekk iwadan anil jumlati niki xiina idin ak yawma idin ak saata idin ak waqta idin bépp zarfu zaman boobu idin tanwinam googu jumla jëmu doon laaf la remplacé waxoon nañu leen ca bu yàgg bu dul ci téere bii ni leen dégg nga ci defe naa ci mul xaxaw ma ma ni leen tanwinu iwat ca ajaroom sax tanwinu iwat mën na nekk iwat anil xarf niki tey jawaari nag xawaashin wenn xaraf la tanwin la remplacé mooy laamu baat gañu xadaf mën na remplacer kalima dégg nga te mooy kullu nag baadin seen mudaaf ilayhi ma ñu lampra tanwin gu moo ko remplacer benn kalima mën na doon jumla itam nag xiina idin ak yawma idin tanwinam gi jumlay lam la remplacer dégg nga ni ki xiina balagati ruuxul xulqum falaw la ida balagati ruuxul xulqum wa antum te yéen xiina idin xiina idin ban xiina balagati ruuxul xulquum ñu ñu ñu ñu tanwi xiina id balagat xiina id balagati ruuxu jumlay balagati ruuxu jumlay feel jooju moom la tanwin googu remplacé xiina idin waxtu booba booba ban xanaa ba nga xamee ni balagati ruuxu la wa wa in yunawan yuxtamal ifraadu id mu ne nag wa maa ka is maanan ka is adif jawaasan na nga dagan na nga laafal lépp lu mel na is ci doon zarfu zaman mubham man nga koo laafal li ngay laafale is haada yawma yanfau saadiqin jé nga jumla yanfau la yawma laaf waaye sunu njàngin da koo binaal liraab ko bu la neexeet liraab ko nag dana ci wax yooyu yaar yëpp ndax foofu liraab bee gën a rafet ndax da lay wax léegi ni la su fekkee feel ji yow ma laaf bu li mu laaf daal bu dee lu ñuy liraab moo xam jumla lisim la wala feel la bu dee bu ñuy liraab ci feel mu daari o dong la kon la gën a rafet mooy rafa kooku ci page bi ci kanam la koy wax mooy nga liraab ko su fekkee lu ñu binaal la laaf ni ki feelu maad ak yooyu kon la gën a rafet mooy binaal kon qiraatu xafs yow ma riwaayab xafs yow ma yam fa u jële ko ci asim yow mu yam fa u saadiqin moo gën a rafet kon ci arabiya gi jàngu yow mayam faw waaye lépp a dagan dégg nga wa maaka is maanaan lu mel ne is ci maanaa dégg nga te mooy mu doon zaraf soo xam ne tàng bu passé la ndax is kat bokkut ak isa isa jamo mustaqbal lay jëm waaye is moom lu passé lay def dégg nga bépp lisim bu mel noonu nag tey saraf bu mel noonu mën na mën nga ko laafal dégg nga ni ki yow addif laafal ko kon jawaasan lépp lu mel ne is ci maanaat ci sarfu samaan yi mën nga ko laafal ni nga laafal naxwu mel ni nga ne xiina jaa a waxtoo mu dikkee jumlay jaa a la xiina laaf xiina jaa a waxtoo mu dikkee nubisa wacc sa wacce sànnees na ko wabni awa arib nga binaal wala nga liraab ma maanaa mu da zaraf ba nga xam ni ujuriya dawalee nañ ko ka is mu mel ni is dégg nga jëm ci jamono bu passé te di mubham ni ki xiina ak yooyu def ko na is xiina ak yow maag saataak def ko na is ci laafal jumla su boobaa nag su la neexee binaal ko bu la neexee li arab ko dégg nga lisim yoo xam ni dawal nga leen dawwaayu is wute nañoo ak is ndax is moom du génn ci zarfiyaam gi yow mu nag mën na doon faa'il mën na doon xabar mubtada ni ki haada yow mu yanfau mën na doon itam lu- muarraf bi al mën na doon mafool mën na doon faayil wattaqu yawman turjauna fii wuteeg is is moom laa yaxruju an zarfiya waaye nag su ko- yooyu zarafu zaman yooyu soo leen loo ci dawal daw waay is su la neexee binaal ko ndax jumla ja muy laaf tax na niru na araf ndax araf moo daan faw balaa am maanaa dugg ci jumla kon niru na arab foofu waaye itam laafe gi du ca cosaan li qatihi kathiran hada yowmun mubarakun ba tax na nag eh, soo ko laafe gi yu- andil na ko tuuti niru araf waaye ñàkk a laaf gee tam day tax nag léegi mu dagan nga liiraab ko waxtar tànnal nag ci yooyu yaar wu ci ne dagan na tànnal binaa a matlu wi fiilin bu niya loo ca xam ne fiil ju ñu binaal la laaf moo ca topp loola binaa la may gën bu dee fiil ju ñu liraab la bu dee lu ñuy liraab ni ki fiilu mu daari wala jumlay lisim kon bon liraab ba mooy dàq waxtar tànnal binaa a matlu wi binaa a mudaafin zarfin mudaafin matluwin matlu wi fiilin boo xam ne lu ñu toppi fiil la maanaam fiil la ca topp jumlay fiil la laaf ni ki yow ma yanfau kooku nee na yow ma yow ma jaa a zaydun jaa a feelu maat la dañ koy binaal kooku binaa la ca gën Eh, ni ni ki nga ne haada muy mubtada ana xabaram yow ma da koo binaal ci fataa ndax li mu laaf dafay lu ñu binaal haada yow yow ma jaa a zaydun ah kon nag looloo tax ñu tànn qiraatu rafi fi qawli taala haada yawmu yanfau saadiqin te moo di qiraatu riwaayatu xafs an aasim dégg nga na nga tànn binaaw li nga xam ni zaraf bi nga xam ni feel bu ñu binaal la laaf ni ki mudaari wala tax mudaari ni ki maat wala mudaari woo xam damiru niswati la kile ah ni ki haada yawma yawma faalna kaza yawma yafalna yawma yafalna kookoot lu ñu binaal la wa qabla ficlin mucarabin aw mubtada acrib wa man banaa falan yufannada wa acrib liraabal nag zaraf si qabla ficlin mucarab bu fekkee dafa jiitu fiil ju ñuy liraab ni ki yawma yanfacu aw mubtadan wala mu dawlu mubtada hada yawma zaydun qaa'imun yawmu zaydin qaai zaydun qaa'imun kon aarib li raabal wa man banaa bu boobaat ku ko binaa lit falan yu fanna da deefu ko juum loo kat kenn du ni tafniit mooy taxtiatu la lawmu wa taxtia lawla an tufanniduun lawla an tuxattiuun falan yu fanna da nee na ku ko binaa litam nag kenn du ko yedd waaye nag comme li mu laab jumlay li mu laaf jumlay lisim la wala feelu mu daarew mu ñuy li raab la eh, tànn nañu boobu wa alzamu ah misaalu lu feen lu ñu binaal ngir dafa laab feen lu ñu binaal ala xiina aatabtu lmashiba ala siba fa qultu alamma asxu wa shaybu waasiu xiina aatabtu waxtu wa may yedd mashib wa alzamu ida ida ila idaafatan ila jumali lafaali kahun ida tala wa alzamu taqale nañu ida baatu ida zarfun lima yustaqbalu min alzamaan ñu naan خافض لشرطه منصوب بجوابه ألزموها